que obligé nañu ubbi école bi est-ce que vraiment tey jii ni bu école bi day tax suñu économie avancée est-ce que amul yenen secteur yu téye dëkk bi. merci ah yo xamni ne lañu wara gëna concentrer. pour par exemple oui. aujourd'hui dans ñi wax pic bi xamna pic bi amuñu assez d'éléments. Hmm. ñi dem ci ci lëndëm googu. yow yaa ko wax légui DG ya xam né nga ku la ci mëna wax téré amul effectivement loolu mo waral nit mbir bo ci amul téré da ci dem dank parce que pour moi, ce slogan là l'INI, mon moyen, débrouillez-vous vivez avec le virus c'est trop tôt. Mhm. je ne suis pas d'accord. on xaaral ma 10 minutes nga mu déglu ma dix minutes de. waaw si waaw mais léegi man non du ma bëgg a eggali rek. man je suis quasiment seul contre tous. non non non non non non non non non non bu fekkee ni. waaw mais bàyyi bàyyi fi ma nekkoon dafa fi ma nekk fi ma nekkoon moo kii. waaw fi ma nekkoon moo moo moo moo kii non dama ne. dama ne dama ne dama ne ubbi ubbi école bi. ubbi école bi est-ce que loolu moom moo doon priorité. mais moo tax waaw mais non non non du ma nag nga dagg ma parce que bi nga wax dagg. non non non déedéet dama yàq. waaw mais après nga récolté waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw

xalé bi ngay jàngal il faut xalam dal yeen convoqué wulen leen loolu yëpp. nga xamné waxuma je ne parle pas du transport hein mais choc. dam lay may amna na ku bind enseignant léegi bi mu ñibbee village bi mu nekk ba ca nek ba mu newoon dañ ko génné stigmatisation stigmatisé non non non non waaw loolu benn affaire benen benen question non pour dire que c'est non l'autre question que j'ai envie de poser. Mhm. né nga 16000 lañ on parle de 16000 personnes ci ci moment bi est-ce que 16000 yoy testé ngeen leen. vous envoyez 16000 sénégalais.

est-ce que xam nga ni mëno yoni ci jamono ji personnes 200 ou 300 personnes bo ma ci positif mhm. buñ waxé rek te yalla tax mhm. wax fa deug yalla 16000 mëno def am zéro positif c'est impossible c'est impossible aujourd'hui est-ce que est-ce classe d'examen yoy mom priorité est-ce que lolu waru len won parce que dans les 3 ou 4 mois qui vont arriver là amna buñ ci wax téere de mais amna yu bëri yo xamné ne ci ci coronavirus bi dina ci feeñ yo xamné ne dina leen permettre ngeen ngeen préparer benen année jël année bi pour déjà protéger les parents et les enfants jël énergie boobu ngeen di def pour dimbaler les transporteurs ñu mëna a survivre pour que suñu économie bi si vous parlez de vivre avec le virus dem leen ci secteur yi nga xamné ne il c'est des secteurs hyper touchés ngeen jéem a ay stratégie yo leen xamné ne gars ñooñu dinañ mëna a di joxe dépense seen kër mais l'école je ne vois pas pertinence qui bien privilégié au détriment de d'autres secteurs ces gens là sont en train de souffrir énormément le secteur informel informel ça dit que pourquoi Why? pourquoi ce cette précipitation ba paraître maîtriser ou le Moi, que ñi d'un examen ñi examen yéna a loolu ngeen len wax ah. hmm. parce que amul dara lu leer lo xam meun nga ci tek sa loxo wax fa deug yalla ne xam ñun ñii mooy li ma la doon wax ñun ñii ñun ay privilégiés la ñu ah. ñun suñu doom bi ci école yu kii la jàng yu bax yi. yu ñuy fay hmm. mais sénégalais lambda bi waxu loko dara lu leer man mi sama dom bu nekul classe d'examen mais je le ah, regarde je dis mais sama dom bi nu mu niilee won daw lu ko raw la gëna a niile non nañu waxante dëgg quoi il faut que ñen jox ñu assez d'information ah, pour que nit ñi né wax fa dëgg yàlla lii ngeen ñu wax dal na suñu xel mais dara léegi la jox assez d'information comme na nga interpellé Bouba, comme ni ma ko waxee l'état du Sénégal est un état organisé ça c'est un deuxièmement le président Macky Sall est une personne méthodique tebuñu ré yewu ré jël décision wax fii ay ñaari date 6 avril 4 mai annulé ñu ñëw 2 juin mais buuba yow doo état man duma état mais man maa la si tane parce que man maa ngi ci biir. bu baax sax man maa la si tane maa ngi ci ah. biir. donc am na lu ma xam. mais lu ma dégg bu ma dégg. non am na lu ma xam. waaw ci li ma xam loolu ci laa génnee fii ay chiffres.